feeñ nañu ndem feeñ nañu ñoom ñoom ñu ñu naan nañu moytu alaykum ci yéen ndem not nañu kon in yasaroo ndem not nañu ñoom waa dëkk boobu ndem not nañu ndem ñoom waa dëkk boobu buur boobu ngeen àndal alaykum ci yéen waxambaane yi yër gi moo kum daañu leen sànni ay doj ba ngeen dee aw yuudu ko wala ñu delloo leen fii milatim ci seen diine ju bon ko wala ñu delloo leen ca dëkk ba di leen jaamuloo xiram te kon kat walan tuflihoo du ngeen gañe abadan du ngeen dem àjjana da ko saarika naka noonu asar naa nee nañ la ñu feeñale alayhim ci ñoom asaabu ahli kahfi li yàlla moo ngir nañu xam ni ci loolu nañ ci xame ni anna waada laay naka daalub yàlla bi mu daale dekki moom lay misaal moom lay kinnaaya àqun dëgg la waa na saata naka saa laare ba déet lu mata sikk fiyaa di nekk ci saa na saa dana taxaw yow ma xiyam dina ñëw ñu fay yetannaa sawoona aha yetannaa sawoona ñuy xëccoo ñuy werante jullit ya ak yéefar ya jullit ya ak yéefar ya nag werante baynahum ci asaabu ahlil kahfi am rawum seen mbir ñii neeñu nañ fi tabax jàkka ñii neeñu nañu tabax ci seen kaw ñii neeñu dañ fi tabaxub iblis ñii daal nag kon tëddaat nañu daal nañu fi tabax ci seen kaw fa xaaloo yéefar yi ni ut noo tabax leen alayin ci seen kaw bun yaanam ab tabax bu leen di suturaal rabbum seen boroom ahla mu xam ne biin ci ñoom mujj na nag xaala wax na la si nañu nga xam ne xala boo ñoo gañe not nañu allah amrim ci seen mbirum werante te mooy jullit ña na lan taxi sànn dana na jàpp masjid dan jàkka alayin ci seen kaw jàkka lañ ciy tabax kan du tabax iblis jullit yee gañe nag mu des nag werante wa nag sa yàqooloona xalset nañoo waxi nag ci jamono yonent sa yaquluuna sa la wax waxul yaquluuna sa yaquluuna fi samani nabi ay yaqulu baalum werante wa nag ca jamono yonent la xalset nañoo wax nag asaabu alil kaafi kër salaasatu ñett lañu woon raabihum ka leen ñeenteel kalbuhum mooy seen xaj ba wa yaquluuna am ñeneen ñu ni déedéet xamsatun juróom lañu woon saadisuhum ka leen juróom benneel kalbuhum mooy seen xaj ba rek man kenn ku ci ne yaa ngay jot di jàntami dul xay bi ci kumpa ba waaye la mu doon lu wér wér wér wér wér waxagoo ko wa yaqooloona am beneen kuréel ni almuminuuna ye sabatun juróom ñaar la ñu woon way saaminu muy ndi nag waawu samaaniya bañ doon jàngale ci saaru tawba way saaminuhum waxul saaminuhum rek waawu samaaniya lay indi ka leen juróom ñetteel kalbuhum mooy seen xaj ba ñii wax nañu lii ñii wax nañu lii ñii wax nañu lii mooy ñoo xam ne ñi kenn ku ci nekk la nga wax mën naa doon dëgg kenn ku ci nekk mën naa doon dëgg ñi wax lii mën naa doon dëgg ñi wax lii mën naa doon dëgg ñi wax lii mën naa doon dëgg waaye nag li gën a bari fii daal ñu ne wa yaquuluuna sab'atun fi mu andee waawu samaaniya wa saaminuhum seen juróom ñetteel ba kalbuhum kooku daal moo ëpp mbooloo xul waxal rabbi seen borom axlamu mooy ki xam bi iddatim seen lim maa yaxlamu woo déet di xam limu asaabu ahlil kahfi ilaa qalilun nga rek lu néew ibnu abbas ni annaa min qalil mën naa ko xam aha nee na maa ko xam bañu laajee yasalunaka an ruuxuluhu min amri rabbi nee na woon maa yàllaam lu moo ilaa xalil nee na woon annaa min xalil maa ko xam falaa tumaari bul werante bul xuloo fiim ci ñoom ilaa miraan di rek werante woo xam ne saayiran day feeñal dëgg ilaan saayiran liñ ci jublu werante woo xam ne saayiran bi maa ansala alayka bi maa umsile bi maa umsila alayka werante woo xam ne day feeñal la ñu wàccee ci yow wala tastaf yow yonantu nag bul sàkku ubbiku fii ci ñoom ñu laaj la dara nga ni danaa leen ko wax te neewoo insha allahu minum ci ñoom min ahli kitaab ci la minhum ci dellu ahadan kenn ah ñu laajoon ko nag ru laaj ko asaabu alil kafi laaj ko suul xarnay ni moo waral saar wi wàcc yett yooyu lañ ko wàcc mun dinaa leen tontu ëllëg te néewul insha allahu yàlla nag di ko yedd moom ci loolu nag wala tastafti fi minhum ahadan fi fi asaabu alil kafi ahadan wala taqolana bul waxati li saa ayin danaa wax dara li saa ayin ñeel dara dara dara dara inni naka man yonent faayilun aju jëf laa saalika nangam jooju xaddan ëllëg illa an yasha allahu nga rek dangaa wax insha allahu waaw loo wax na nga ne insha allahu nga rek boo neex na laaw buur yàlla waskur fàttalikul rabbaka sa boroom ci sartum isa nasita am na benn nit yàlla ba muy faatu dañ ko ne waxal laa ilaha illallah muy laa ilaha illallah day leeralum néeg day leeralum néeg te néeg bi musta lëndëm laa ilaha illallah mosul jóg ci sama xol ba ma jàkk ba léegi ma di ko wax waskur rabbaka isa nasita te man mosuma koo fàtte waskur rabbaka isa nasita waxul waxal ni asee ndax an yaadiyani bu jëbal ma rabbi sama borom laa xaraba ngir ma jegeñ min aasa ci lii min xayri ahlil kahfi yiw waa kahfi ya fi dilalati ala nubuwati mu tegtal nag sama yonent wér nu rasadan ak jub ñoom daal wala bisoo ñaata la ñu nelaw nag ci xuntima wala bisoo sax nañu fii kaafihim ca biir xuntima moo tax mu ni fii salaasa miati salaasa miatin ñetti téeméer ñetti téeméer sinniina ci at waxul xaaman ndax dañ fa tëdd di nelaw rek nekk ñu fa woon di xewlu ñetti téeméer ci ay at inda al kitaab ah loolu la ñu gëm ñu ni samsiyatan ci ati samsiya bu dee ci ati xamariya nag da nga ci dolli kon juróom-ñeenti at wasdaadoo tisan waaw ndax weeri samsiya moo di yuna moom la ñuy wax yunaayir fabraayir maaris awil me juillet juillet août septembre octobre novembre décembre ñee na ko janvier février mars avril mai juin benn la rek dégg nga bu ko defee nag am nañu juróom-ñaari weer yoo xam ne fanweeri fan ak benn la yunaayir fanweeri fan ak benn la yunaayir moo di samedi yunaayir fanweeri fan ak benn la bu dal fii rek fanweer ak benn la yunaayir février bi dal fii motu ñetti at wi na ba ko ñeenteel mars fanweer fan ak benn avril fanweer mai fanweer ak benn juillet fanweer juillet fanweer ak benn août si fanweer ak benn septembre fanweer août fanweer ak benn septembre fanweer octobre fanweer ak benn novembre fanweer décembre fanweer ak benn waaw par benn benn bis yooyu nag bu ko defee nag moo tax ñu ëppante juróom-ñaari weer bu nekk sa fanweer teg nga ci bis ah te weeri xamar yee moom moom it dina am faw lu mu néew néew am juróom benn weer yoo xam ne nit ak juróom-ñeent lay doon manqué na bis bu ko defee at mu nekk ñu ëppante fukki fan ak benn at mu nekk ñu ëppante fukki fan ak benn at at mi ak at mi bu ko defee ah ñetti at yu nekk am at ñetti at yu nekk ñu ëppante at ah ñetti at ñu ëppante weer waaw tasa juróom nag waaw ñetti at waaw bu ko defee nag fanweeri at yeeg ñett li ma bëgg a wax daal fanweeri at yeeg ñett daañu ëppantem at loolu laa bëggoon wax moom la ñuy tuddee isdilaaf waaw wante ñetti at yi moom fukki fan ak benn ba muy ñetti yoon la rek bu ko defee nag li ma bëgg a wax mooy fanweeri at ak ñett yu nekk moom la ulamaaw fële di tuddee isdilaaf dañuy ëppanteem at mhm dañuy ëppanteem at waaw dañuy ëppanteem at moo tax anniversaire luy jafe nga bi ñuy def anniversaire Serigne Babacar moo tax bi ñëwee ci man man leen ñeent fukki at yi ngeen wax topp na at ak ñeenti weer ak i fan waaw ndax da ngeen ko jàpp ca da ngeen ko jàpp ci samsiya ba ca xamariya anniversaire ca xamariya ba lañ ko war a jàpp
am na benn borom xam-xam mu ni boo jàppee asaka yi ni jàpp boo ko jàppee ci weeru waat dana am at moo xam ko àggee dana war a def doo doo ko waaw ñëw
ndax fanweer fan ak benn yi ni ci
waaw loolu moo tax may sonn ci loolu di ko wax loolu rek la bu ko defee mu ni salaasa mi atin fi nii na salaasa mi atin fi nii na wasdaadu dolli nañ ca xamar ya ca weeri xamar ya kisan juróom-ñeenti at ñetti téeméeri at yi juróom-ñeenti at dolli ko na ci du dëgg juróom-ñeenti at dolli ko na ci kooku mooy samsiya ak xamar ya xul waxal ni allahu yàlla ahlama xamee na dinaa labbisoo moo xam lam fa sax lañu fa sax kon loo ñeel na ko xay bu samaawaati kumpak asamaan yi wala di ak kumpak suuf ya ab sir muy alifu taajub seexatu taajub yéemal yéemalub gis wa asmi wasmi yéemalub dégg yéemalub gis yéemalub dégg ci ñoom ñoo ñi asaabu ahlu kasi maa lawum déddi ñeel leen mooy li ahli samaawaati ñun wàll yin koy wattoo koy dimbalee min dooni kuru yàlla yi la ñii ci suuf yaakaaruñu kenn ku leen di dimbali kuru yàlla ñi ci kaw asamaan it yaakaaruñu kenn ku leen di dimbali kuru yàlla aha ni nu yaakaara yàlla noonu lañu yaakaara yàlla aha moom la ñëpp yaakaar wala yusriku te wolof yi kat daañu di wax naan kenn duma yaakaar yat na yaakaar yàlla ba noppi nag nangu woo jëfe ndigalam wala fii dañuy xaat xaati kenn duma yaakaar yat na waaw yàlla nag da nga koy yaakaar yat yaabel mu ngi ko weesu nit digal la ne la lii laa bëgg nga lànk na ko lii laay def su ëkk mii ci atteem te yàlla li muy def du woo kenn du ci waxtaan ak kenn nee na watlu wuute naag iqra wuute naag iqra iqra booba yonent bi mu nga ca xamuloo woon maal kitaabu waa iman yonent bi xamagul lii lan lay tekki xamul iqra baatub iqra la muy tekki lan lay firi moo tax ñu ni ko jàngal day jàng kiy jàng te li muy jàng xamu ko kooku moo di xiraat doonte day jàng alxuraan waaye li muy jàng xamu ko ci xiraa la nekk kiy jàng te xam li muy jàng moo nekk ci tilaawa kooku moo di watlu tàng mooy mooy xaari ah kon tàng mooy xaari waaw waaw loolu ji mooy ta tilaawa tilaaw waaw moo tax si Ahmadu Bamba ne xab lii tilaawa waxul ab lii xiraa te ci grammaire ba ñoo tolloo tilaawa ak xiraa ñoo tolloo waaye du ko sa employé waxoon mu jub way wa jub waaw du ko wax tilaawa la wax moom la bëgg kooku nag ñu koy jub taani waaw taali nee na bu ko defee nag bu ki amee benn kii dina am téeméer kii jàng te xam li muy firi dana am téeméer kii jàng te xamul li muy firi am benn moo tax yàlla ne ko watlu turu yàlla bi nga fekk ci alxuraan nga jàng ko téeméeri junni tuyaaba nga ciy am dégg nga moom lay ëppee turu yàlla ba ngay sikkar ci sa course ci kaw der ba bu kii amee téeméer kii dana am téeméeri junni ki jàng turu yàlla ba ci biir alxuraan moo tax alxuraan sikkurun wa tilaawatun sikkar la tilaawa la yaa ngi sikkar yaa ngi def tilaawa alquran melow yàlla la moo tax mu mel nu kenn melul loolu tax nit rek ci la jàmm mën a sottee ci xool kaaba gi kaamilu alquran say waajur say waajur boo leen dee xool yaa ngi jàmm kaaba gi boo ko dee xool yaa ngi jàmm kaamilu alquran boo ko dee xool yaa ngi jàmm donc tekki woo watlu ma oohiye ilayka min kitaabi rabbika ci sa téere borom yonent bi yàlla nee na ko jàngal durusal laa mubaddila li kalimaatihi moo tax alquran kum nekk sa ñaari sàllwet garaatu nu boowa nga fa garaatu nu boowa nga fa garaatu nu boowa nga fa yonente bi nee na ci addis tuuba texe ñeel na ki nga xam ne denc na alquran ci mangasinam su ko neexee mu di ko yeddi par benn baat ba mu jeex te du yorub téere du yor dara waaw kaamil bi nag téeméeri saar yee fukk ak ñeent juróom benn fukki isib yi waa ji wattu na ko waaw fan la nekk nañ ci moom fam nekk yàlla rek ko xam lawil mahfuus la alwa ju ñu wattu ma ngi ci lawil mahfuus ñu ngi ci lawil mahfuus fa mu fa mu placé nag dend naag xol ba ñoo bokk dëkk ah dégguma de loo dégg lu wax
waaye moom nag ñu ngi lekk lu waaw nee li ko jaaxal mooy man ngaa yow mokkal benn si wala ñaar wala kaamil ci téere xam-xam yi ni jàng kenn doo daan ko mën a wax
leerub alxuraan a waxoon naa ko ñu barki dem leerub alxuraan baat boo tudd leer gaa la yóbbu ca baat ba ca des
moo lay giide la moo lay giide téere yooyu dafa dafa amul leer ni alxuraan amee leer moo tax mun loo koy mokkal fi mu ne genn ñaan rek bala nga koy mokkal da ngay sonn waxuma nag buñ la bëggee tari loo nag risaala tari loola xalil alxuraan dafa leer moo tax te itam ah day melow yàlla day melow yàlla day melow yàlla yàlla nañ ci yàlla soxal watlu maa ooyee ilayka min kitaabi rabbika laa mubaddila li kalimaatihi muy kàttanug yàlla muy waati yàlla walan tajida doo fekk mukk muy taadan fi waaje wéeru min doon yu kurul yàlla dootu am fenn fu mu wéeru sàkket woo wéeru wala miir boo wéeru mu daanu wasbir muñal yaa rasulallah nafsaka muñal sa bopp na nga muñal nag ànd ak maala si na ànd ak ña nga xam ne yaddoo na ña ngay jàng alquran yaddoo na ña ngay sikkër rabbahum ña ngay jaamu yaddoo na ña ngay jaamu rabbahum seen borom bil xaddaat ci suba wal asiet ci ngoon yuridoona ñu nam ca jaamu ga wajahoo jëmmi yàlla dong dong dong wala tahdu bul weesale say bët bul jéggil say bët xëy naa ko sa ñaari bët am mu wëcc leen fa di xool ñeneen turudu ngay namm seen salaayaati taarub adduna faaleel ñii bul wut taarub adduna ba wëcc leen fi dunya ran recevoir leen waxtaanal ak ñoom wala tuti bul topp man ka nga xam ne axsal naa sàgganal nanu xalbu xolam ba an sikir naa mu bàyyi bi sunu alquran jii ki wacci alquran wacc ko wa tabaxa mu topp ba mu waccee alquran xawaaw la ko neex wa kaana nekk na amru mbirum waajoo jëru ci alquran topp xawaaw furu tan ëppal na di mbirum mbirum ku ëppal waqul waxal nag wax naa li may wax ci alquran ba pare waqul waxal alxaq alquran daal mooy dëgg min rabbikum gu bàyyi ko ci seen borom dëgg gi bàyyi ko ci yàlla daal mooy alquran léegi nag fa man saa ko mu neex fële yooyu min na jàng fële yooyu min na gëm wa man saa ko mu neex fële yakfur na weddi xëble la moo di taxdid ku weddi xam innaa ni ki nun anqadanaa xaroo nanu ku weddi nii rek lañ ko xaroo li saalimiina ñeel ña weddi alquran naaran sawara ahaakat feeg na suraadiquwaa niiram ba bihim ci ñoom niir ba sawara la nañ nañ nañ nañ di tàkk ngañ ngañ ngañ ngañ di tàkk ñu ne ngañ gi mu ngi taal wala mu ëpp ko te doo gis saxar yéen yi sax yi soo ndem sàkk nañoo xettaliku ci sawara ga yi leen di lakk yu xaasoo ñu xettilee leen ne xaar leen ñu indil leen njar bi maa in ci ndox kal muhli mel na diw bu riig na muy tànge diw bu ñu baxal ba mu des ndix ndixóor ga ndix ndixóor ga ah wala përëm bu ñu róol xam ne yes wi day def ñoret wu jooxoo kanam ga buñ ko jegee rek mu ne ñoret kanam ga yàlla nee na bii sa bon na saraabu gi naan wa saa ñaaw na mu tabaxam ku dëppoo gi naan muy tam gis bu fekkente ne sonn nañ ci sawara bi leen di lakk loolu la ñuy serloo moom lañ di xettilee moom lañ leen di xettilee mooy deeseer bi daal deeseer bi ba loolu xew nag fekk na ina lesi na ni ki gaañ a nga xam ne sama gaañ a nga xam ne amano gëmoon nañ ma gëm alquran waa mi loolu ñu jëfee salaata tarakat sunna inaa ni ki noonu laa nu lee dum sànk mukk ajëral ajëra man yoolu ko nga xam ne ahsana rafet na xamalan njàngum alquranam xamalan jëfam buñ ko sànq uraaka ñooñu gaay lawum ñeen na leen jannaatu adduna ajjanay adduna ji nga xam ne yàllaa ko jëmbatal boppam moo ko sampal boppam tajri dana daw nga xam ne yàlla moo wax ne jamono yoo ne la hawla wala quwwata illa billahi alil asim jëmbatal nañ leen benn garab ci jannatu adduna ndax nee na moom laa jëmbate garab ya min taatihim lanaaru min taatihim seen tuufi kër yoalaw na ñu ngay takkaayoo min asawiri ci ay lam lami wurus yu rafet fiiha ci ajjana ay senen min saadin ci wurus wa yalbasoona ña ngay sol di sàngoo siyaaban ay mbubb siyaaban ay yére ay malaan kullun malaan yoo xam ne yi meen dafa nitix malaan yoo xam ne yi dafa wert rafet di nef nefi ba bët mënu koo xool min sin disin min sun disin ci malaan yoo xam ne malaani sooy la istibraqin ak malaan yoo xam ne malaani leen la sooy ak leen mutakiina ñuy way kebe lenku fiiha ci malaan ci àjjana ala laraay ko ci kaw njeganaay jamu arikatin ah yàlla nee na ah li ma leen defal baax na de nii ma baax na sawaabu yool baax na de waasu nag rafet na murtafaxan wote naag ñële gaa ñi de rafet na li ñu dëppool rafet na li ñu dajeel ah boo bëggee xam àjjana ndaa ngi lay tëralal yàlla nee na maa ngi lay tëralal benn misaal ci ñaari gaay wadrib defal ah masalan misaal rajulayni ñaari gaay lahum ñeel leen ñoom yéefar yi yéefar yi indil leen ñaari misaal yoo xam ne yi jaal naa def nañu li ahadihima kenn ci ñoom ñaar te mooy yéefar ba jannatay ni ñaari tool min ahnaabin defal nañ ko toolu resin aha wa afaf naahuma nu gëngale ñaari tool ya bi naxlin ci tàndarma ñaari tool yëpp dama gëngale tàndarma ji ñu rëkk ko wa jaal naa nu def bay numa ci diggante ñaari tool ya saraan meneen mbay mu rafet cëgtal jannatay ni kum ci ñaari tool def nañ fa mbay mu rafet nee na aatat kum ci ñaari tool yi ñaññi na joxe na ukkulaa nañña tam na walam taslim nee na ñaari tool yi foomul walan taslim wàññikuul béykat boo ko waxee foom xam na ko walan taslim nee na téewul soyan dara minu ci tool boobu wa fajar naa nu ballal xilaalaw naxaran am ndox xilaalaw maa ca diggante ñaari tool ya ca digg ba wa kaana nekk sumurun sumurun meññet lowoo ñeel waajo ju meññet mu dul jeex cëgg ay cëgg ak ay dubag lu nekk fa xaala wa sawaay daal di wax li saay bi ñeel mboroom ma nga xam ne jullit la te moom amu ci tool yow moom yaawiroo ma ngay fuukare ci kawam naan ko annaa man naka jekk annaa man ak saru maa gën a bari la maalan alal min ko ci yow wa aasu maa gën a tedd nafarun askan maa gën a tedd nafaran askan maa la ëpp alal maa la gënu askan ñëwoon démbay waa tey rek aha mosoo tekkit dara wa daxala mu tàbbi jannatahu toolam ba nag ma ngay fuukarew wowata moom zalimun ma ngay toll li na si ñeel boppam ndax waxul bismillah xaala mu ni man sax maa asunu jortuuma ne an tabida lii dana jeexati abadan faw dootul jeex man sax wa maa asunu jortuuma ne saata saa xaayimatan aji taxaw la jortuuma sax ne saa dana taxaw te man bu saa taxawee it wala mu rudd bu ñu ma delloo ilaa rabbi ci sama borom laa ji dana danaa fa fekk xayran lu gën mun xalalan ab dellaay minaa ci tool bi ba ma fa delloo fekk fa lu gën tool bi xaala wax ko loo ñeel ko saay boo àndaaleem di gul bi nga xam ne amul tool woo moom yu aawiroo ma ngay waxanteeg moom yu jaawiroo ma ngi koy tontu kee yu aawiroo yu faaxiroo da doon fuukare kii nag moom da koy tontu rek yu jaawiroo aka farte ma yow ndax da ngay weddi bi la si ci ka nga xam ne xalax ka moo la bind min turabin bala yàlla bindee ci suuf booba amoo dara leen na aadama xulliqa minhu ba nga jógee ci suuf suma topp min nuttatin nga jaar ci benn toqantu maniw aha min nuttatin nga jóge fa suma sawee ka yàlla di la jaar la ci ay atwaar ay tuur mujj yemale la rajulan ngay benn waay nga dem ponkal laakin na lu fi ne yow mi le santoo yàlla de huwa moom luy dëgg tey dëgg allahu yàlla man daal man yàlla man rabbi mooy sama borom wala usriku duut usriku duma bokkaale ahadan kenn bi rabbi sama borom yow sax walaw laalu tere xelaa yelloon na isdaxalta ba nga tàbbee jànnataka sa xool sa tool xulta nga waxoon ma sha allahu la quwwata illa billah yonente bi ne ni ci àddis man utiya xayran min ahalin ci ñooñ doom ji judd la wala leneen aw maalin wala ñu jox la alal fas woo jënd la wala oto boo jënd wala leneen loo jënd fa yaqulu inda salika bi la ko yàlla joxee nga ne ma sha allahu la quwwata illa billah doo ca gis mukk lu la naqari ma sha allahu la quwwata illa billah nga góorgóorlu nag bañ wax laa xawaata ma sha allahu la quwwata illa billah maa la nga xam ni saa neex na laaw bëree la laa quwata déet kattan bi am ci kenn illaa billaahi nda rek ci yàlla ci yàlla rek nga mën a amee kattan kattan bu jaarul ci yàlla du kattan in tara ni ndem gis nga ma man nii an naa man àq la ma gën a néew min ko ci yow maalan alal wa wala dan ma gën laa néewi doom ah fa asee ndax rabbi sama borom an yootiya ni mu jox ma xayran lu gën min jannati ko ci sa tool yi ngay ngay ngay tiitaroo waa ji wax ba yàggal rek wa yursilu daal di yebal yàlla xusbaanan aw sawara jamu sawaayiq xusbaanan xusbaanan sawaayiq aw sawara allayha ca kaw tool ba mais sa naay sawara bu bàyyi ko asamaan sa pés ba mu mujj tool ba sayidan muy pakk saraxan bu dal ngeer bu amul dara walt rattax bandan tool ba dara nekk saraxan bu dal ngeer bu ko wolof di wax mooy bu rattax bandan suuf bu rattaxee dara nekkatu fa aw li fiyaa ba xëy maa waa ndoxum tool ba xawran di ñiis genn xottum du ko desatu fa walanta sa tee mënatuloo talaban te mënatuloo wuti beneen tool mënatuloo wuti beneen ndox talaban mënatul talaban la woo ñeel amul kenn ku ko mën a wutalit wuy te ñu peeg di sama ri ci meññetum tool ba sawara wàll ko ko faas ba mu xëy yu xolli bu ma nga naan nii ma ngay tugge yedde yi ñaari këba yi ñaari kenn xam allama ci la nga xam ne an faqa yàlla joxoon na ko fiyaa ci tool boobu wéyatuhum xaawiyatun mu juuru ala urusiya ci taxawaayam ba il yaqulu mu ne layta ni yàlloon te man la musu duma bokkaale bi rek sama borom ahadan te kat walam takkun amul fiatun benn mbooloo ay mbokk lawoo ñeel ko yéen su doon ñu koy dimbali amul kenn ku koy dimbali ci lii ko dal amul kenn ku koy siiw di ko dimbali min dooni laay bàyyi fa yàlla wa maa kaana nekkul mun tasiran mënul dimbali boppam inda alaati amul ku ko dimbali te mënul dimbali boppam lu mettee nga wa maa kaana mun tasiran mënul dimbali boppam yàlla nee na kat fu des yowmal xiyaam te kat xam naa la que foofu la ca yowmal xiyaam nag foofu la ca yowmal xiyaam nag alwalaayatu ndimbal la lillaay ñenn yàlla alxaq
safu makkan nee na walaayatu bi fat il waawi ndimbal lay firi bi kasril waawi nguur lay firi walaayatu ndimbal lay firi wilaayatu nguur lay firi ci la ñu jëlee wilaaya gi ñuy wax ci wàllu yu wilaaya waaw aha wilaaya aha nurungo wilaaya walaaya boo amul walaaya nag kenn du la kenn du la jeeñ ne am nga wilaaya faw nga am ndimmal gaa yi soog a nangu sa wilaaya gaa yi kat walaaya jëkk ci ñoom wilaaya boo amul walaaya kenn du doon sab wilaaya hunaalika alwalaayatu lillahi alhaq hunaalika alwalaayatu lillahi alhaq sëriñ bañ ko joxoon fukk ak benn fukk ak benn mun man ne ko di ko ñaane sa yaajo mu dem def di nekk téeméer ak fukk ak benn ak njayeen la nag mu nga dëkk jolof njayeen la de waaw ak sëriñin bu baax moo ko jox sëriñ bu baax ñu ñëw wan ko sama bopp mun kaa bul weer téeméer ak fukk ak benn hunaalika alwalaayatu lillahi alxaq hunaalika alwalaayatu lillahi alxaq hunaalika alwalaayatu lillahi alxaq di nekk téeméer bi ko benn ba yàgg rek mu geestu rek ah ñu ne dem ci wana wi dem ci wana wi ba jàppaat ba dellu si dugg néeg bi rek xajul amul fu mu teg tànkam lu ëpp di nekk téeméer ak ko benn kenn ku nekk naan mu maalikal walaayatu lillahi alhaq kenn ku nekk wër kurus bu mel na kurusam sol mbub mu mel na mbubam di def lu mu doon di sikkat lu mu doon sikkat daal di dof rek dof rek hunaalikal walaayatu lillahi alhaq bu yemoon ci butut benn de loolu du ko dal huwa moom xayrun moo gën muy hunaalika walaayatu lillahi al aq moo gën sawaaban ak yool wa xayrun moo gën uquban lii nga xam ne moom ak mucc mooy ki nga xam ne amul woon tool wadrib seddal lawum ñeel leen boobu misaal bu jeexee andil beneen seddal lawum ñeel yéefar yi ba tey bële misaal bi nu weesu yéefar yi lañ ko doon tëralal yéefar yi nga xam ne seen adduna gi ñu am dañoo defe ne moom rek kay dara bii misaal nag mu ne ko seddal misaal bi nag pour sow nit ñu ñëw waa makka lahum ñeel waa makka masalu ayaati misaalum adduna duniyaa ga di kees kamaay mu ngi mel nan ndox ansal naaw munu wàccee mi ne salmaay bàyyi ko ci asamaan faxtalata jaxasoo bii ndox ma nabatul ardi gàncax gi ci suuf si yàlla jaxase ko ndox mi aha fa asba mujj nag xasiman di boob wow comme nu ñuul kub tasaroo dana ko jëri riyaaw ngelaw li nag yi rëppaaji ko ngelaw li jëri ko noonu la adduna mel wa kaana nekk na laaw bu yàlla muqtadiran di aji dogal ala kulli sëy yàlla mooy dogal lépp yàlla nee na almaalu alal ji wal bannoona doom yu góor yi yéen gën a bëgg lépp sinatul ayati taarub aduna la sancet aduna la mbubum aduna la dunya gadi kees wal baqiyatu subhanallah wal hamdulillah wa la ilaha illa allah wallahu akbar neena wal baqiyatu wal baqiyatu wal baqiyatu a saliatu yedi yiw te mooy baat yooyu ma wax xayrun moo gën moo gën mboole mi alal yi moo gën mboole mi doom yi yu góor yi ndaxte subhanallah ba suñ borom bindee xaras na malaayika yi jël leen ko malaayika yi jël ko jël mënuñu koo jël ba ñu ne subhanallah rek la aras woyaf ñu daal di koy mën a jël alhamdulillah ba yàlla bindee aadama ba ruuga yëg si ca bopp ba mun tissoo yàlla na ko nil alhamdulillah moo tax ba tey ku tis bi boo nee alhamdulillah ba mu ne alhamdulillah moom aadama yàlla ne ko yarhamukallah mu delloo ko ne ko yaxfirullahu lana wala ku nag kenn du ko wax yàlla yàlla it kenn du ko ne yarhamukallah waaye nag day jàngale yàlla kenn du ko ni yarhamukallah kenn du ko ni yaxfirullahu lana wala aha waa mu ne alhamdulillah ba mu ne alhamdulillah foofu la alhamdulillah jóge subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah yonti yàlla noonu mooy ki ko waxoon ci xiram ya xiram yu dul jeex muy daanee la xiram ya la ilaha illallah la ilaha illallah xiram bu mu ne la ilaha illallah rek mu daanu moo tax laa ilaha illallah boo ci defee junni benn per bu nekk dana la fanqal aajo faral la bakkaar te bokkul ak la moroom mum peram bay def ba junni ba jeex mu des allahu akbar maam sunu ismaila bañ koy bëgg a rey te ñu jote ko xarma xarmañ ko jote woon ba xarma ñëwee moo tax mu ni allahu akbar moo tax ba tey buñ dee rendi xar ci tabaski naan allahu akbar aha ah biñ ko bi ko jibril nettilee yonent bi nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ci dolli la hawla wala quwwata illa billah aha moo tax ba fii mu ne booy rey xar da ngay tudd tur yàlla bismillah boo ko waxee baax na waaye boo waxoon boo waxoon subhanallah bañ a wax bismillah it baax na boo waxee alhamdulilah baax na boo waxee laa ilaha illallah baax na boo waxee allahu akbar baax na boo waxee laa hawla wala quwwata baax na waaw ci rend bi nee na bu ko defee loolu moo indi ñu koy tase de nag kenn ku ci nekk fanweer ak ñett ca addis ba nag nee na bi ay yi na tàggatta laa dugg du lor nag boo jëkke mën ngaa jëkke subhanallah mën ngaa jëkke alam laa mën ngaa jëkke allahu akbar waaw fu la neex jaar dégg nga nee na nag bu ko defee nag subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar fanweer ak ñett moo tax ba léegi du kasab rek de loo ko ñaane yàlla suñu borom yàlla dala koy may ndax jaam bi xalaatee ba yàlla bindagul dara dara du dara dara newu fi yàlla bindagul dara dara dara nga xalaat mag yàlla nga ni subhanallah bala ngay wax subhanallah nga am xalaat boobu nga xalaat bi yàlla bindee ba noppi te li am lépp yàllaa ko bind nga ne alhamdulillah yàllaa bind ñëpp bindaale la ci yow mii di xalaat ak yow mii di ko wax bi yàlla rayee ñëpp ba kenn desatu fi lu dul moom nga ni laa ilaha illa allah bi yàlla dekkalee ñëpp nga ni allahu akbar moo di baat yooyu le moo tax lim ëmb dafa bari aha moo tax hadis bi ni afdalul kalaami baada alquran subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar
waaye kon du bidaa ah du bidaa because perfect naan
déedéet ndigal la ndigal la bi daala kay mooy nga ëppal ko waaw
am na nag ku ko daan tase de ñetti téeméer ak fanweer ak ñett yowmal xiyaam bi yàlla woote ne ana ñi doon wax subhanallah wala lay lay lay la akbar fanweer ak ñett ñu ñu ñëw ñu ñëwaale ci ñu ne ko yow bokkuloo da nga ëppal caabi bu ëppalee du ubbi bu jotul it bu rendee it du tijji da ngaa deful lañ la def loo woon ah ah boo ngay ñaan yàlla sa soxla nag bu la neexee nga def loolu aha ñu dem Mhm. xayrun inda rabbika sawaban wa xayrun moo gën amalan lu ñuy mébét waskur fàttalikul noonu la baat yooyu wàcce daal waskur fàttalikul yow ma nuy sey bis bu nu doxloo jibaala doj ya doj ya dong dong di dox watara gisaa nga arda suusa baari sa tan muy aji feeñ saahiratan laysa allah sayun lim jublu ci saahiratan muy aji set wecc nga gis suuf sa baari satan muy aji set wecc amatul dëg amatul xur amatul dara wa usa waasar naa mu fong leen jurit yéeg yéefar yi yëpp andeegun woon tasul yow ma falan nu xaar du mu desal ahadan kenn minum ci ñoom wa huridoo gaaraleef leen saftan ñuy sàppe ala rabbika min ci sa borom laxat jiitumoona mbir moom dikke nañ nu ñu ñëw kama xalxanaakum nanu leen bindee woon awala maratin te njaal benn yoon kenn ku nekk da ngay ñëw càppaa coli nga bi ngay ñellu si man càppaa coli nga kenn du ànd ak kenn kenn ku nekk yaa demoon yow dong yaa dikk yow dong bal sa antum ñuy caaxaan naan lan naj àlla dum dëkk maw idan ab daalu dekk lakkum ñal leen wowu lee tëralees alkitaabu téere ba kulli imri in bi yaminihi min almuminina wa bi simalihi min alkafirina cam su nekk sa loxo ndeyjoor ngay nangoo sa téere ah yéebar bu ne sa loxo càmmooy aha cam su doon jullit boo jógee ca penc ma da ngay dégg wa yanqalibu ila ahlihi masrura wa yanqalibu ila ahlihi masrura ba taraa gisaa nga mujrimina yéefar ya musbiqina ñuy ragal lima fihi la ca téere ba xam nañu li ci ne wa yaquluuna ñuy wax yaa waylatana way nga lanum maa li asal kitaab lu dal ji téere laa yuqaadiru lu dal bii duse laa yuqaadiru du desal saxiratan lu néew lu ma defoon wala kabiratan lu jaabiyani lu rëy lu ma defoon ci bàkkaar ila ansaan rek mata na ko lu nekk takk na ko lu ne bind na ko woo jaddoo ñu fekk maa am loolu la ñu defoon aadiran mu ñu jaww di teew musbitan fi kitaabihim wala sunu yàlla neen du tooñ rabbuka sa borom ahadan kenn yàlla du tooñ waskur fàttalikul is qulnaa waxtu woon waxee lil malaayikati ñeel malaayika yi jàngoon nañ ko ca gannaaw ca saaru hijri usjudoo sujjóot leen li aadama fa sajadoo ñëpp sujjóot illaa iblis mbeleg lànkkat ba mbeleg ki naa ko yërmande yàlla moom kaana bokk na minel jinni ci jinne këy la um naw un minel malaayikati ñu ni déedéet aw xeet la ci malaayika waaw nee na ah fafa saqa bëtt na an amri rabbi bàyyi fa ndigalu boromam dafa bëtt ndigalu borom afaka taqisoon ndax koo ki nga xam ne wiyul ci ndigal ndax da ngeen koy jàtte wa suriyatu ak sëtam ya li aadama wa suriyatuhu wa aawhi mawdi ay ni moom iblis afata taqisoon afata taqisoonahu wa suriyatuhu wa doomi aadama yi lay waxal waaye wax jaa nga dellu ci iblis faka saxa an amri rabbi afata taqisoonahu ndax ndax da ngeen di jàtte iblis wa suriyatahu ak sëtam ya sëti seytaaneem ya ndax da ngeen leen di jàpp awliyaay ak xarit min dooni bàyyi ma fi man yàlla woom te ñoom addu noon lañu ay noon lañu baat la boo xam ne dafay tëdd tiraayu jàmm lakkum ña leen mook day fooyam nee na bii sa bon na badalan iblis li ñuy remplacer li saalimi na ñeel way tooñ maanaam iblis ak sëtam yëpp ku leen topp bañ a jaamu yàlla bon na li nga remplacé te iblis kat lu mu la mën a wax day kàcc maa asdaktum seede loowuma leen iblis ak sëtam yi seede loowuma leen ba may bind asamaan yi fekkiruñ ko moom la fi liif gii def asabtu seede loowuma leen xalqa samawaati bindu asamaan wala la bindu suuf te ñoom sax seede loowuma leen wala xalqa anfusim seen bindu bopp sax seede loowuma leen ko man wa maa kuntu nekkum ah xaddu doon di doon kuy dimbali man yàlla mu taxisal mudli ne fii jàpp xarit way réer ñi te mooy ñii topp iblis waskur fatalikul yoma yaqulu bis bu waxee naa doo woo leen surakaay yi ñi doon bokk ñi doon jéem a bokkaale man dañ ko doon jéem sax waaye munuñu ko yàlla kenn mënut a bokkaale ak man wax na ko ca saaru yunus aha la si nañu nga xam ne sa am tam yéen a ngi caaxaan ni dañuy bokkaale ak man fa taxu mum woo leen leen bu ngeen leen woo day falam yu sajjiboo duñu wuyu lahum ñeel leen wa jaal naa def nanu mawbiqan aw xur wu digale bay noom seen diggante ñoom xiram yooyu def naa bi aw xur mi ne aw déeti jaanama ci xur ja